بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وقلبك بكاء على سادات الأموات تبكي الأراضي عليهم كالسماوات وقلبك بكاء على سادات الأموات تبكي الأراضي عليهم كالسماوات أبو الحسين الحسني ما سواك لا يمن هل يدور وكنين yaa masal muhaajiriin lan saarikum ci man di doon tey soxla naa ku dem yaman a jóg ibnu jabal mu naa ko yaa ibnu jabal xamal na dem yow la ñeel yaa ilimaani waa yaman pantalakke yaa maas jibriilu moo ma maas na dem yaman doon seen liwaas moo ilimaani waa yaman dooleem ba waaw foofa bilaan nee ko tàllal ma saak meteel bu ñëw mu daldi koy meteel te naa ko waajal dem yaman maas daldi jóg jàpp gëliim fabrax la teg ñu di ko yiim yónneen ba naa ko kaaya doom auzu billah bismillah inna waliyallah la xawla wala xuwata illa billah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk jullit yi mbokk taalibe yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar man seen mbokk taalibe Xaadim la maa fas yéene ànd ak yéen ci émission xayaatu rijaal bi leen madrasa di baaxee bésu aljuma yi à partir de vingt tey ñi ngi fas yéene ànd ak sëriñ bi di sëñ Kajaali Njaay eh, dañu koy jox kàddu gi mu nuyoo ñu daal di tàmbali li nga xamante ni mooy liggéey bi. aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kon alaikum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mbolam ñi ñi tewlu di nuyu sëñ Khadim di ko ci dalal gi ñu dalal sëñ Kadial ñi ngi lay sante bu baax baax ci duggu ci bi kon bokk talibé yi tay ñi ngi fasiyene waxtane ki nga xamantene moy sahaba bi Seydina Muaz ibn Jabal kon dañuy bàyyi sëñ Kadiali mu présentel ñu ko. waaw tey ñu ngi fas yéene waxtaanee ku ñuy wax Muaz ibn Jabal di saxaaba bu mag moo xam ne turam moom képp kuy jullit rek miin nga ko yàgg nañ ko dégg rawatina si yoon wi ndax am na taalif bu siiw nga xam ne benn wolofal la bu Cheikh Moussa Ka bind suma juumut te mu si nettali dénk biñ ko dénk. mu wara dem yemen te yonte bi denk ko mission bo mu waron dem yemen jangal wa yemen l'islam kon motax touram yakarna min nañ ko bu baakha a baax muy Muaz ibn Jabal mom nak euh, sahaba la won andan andak ak bi si benu wote gi danaka ndax mom euh, wa Yasrib la won bokku ci lansari fekke na ñaarelu jaayante aqaba bi te it euh, ngir bi mbokk mooy ngiru xasraj ngiru xasraj bokk si waa lansaar si ngir bokk ci ñaari ngir yu gën a mag yi nekk yasrib benn bi mooy waa aws beneen bi mooy waa xasraj moom nag si waa xasraj la bokk waajuram mu ngi tudd jabal ibn amr ibn aws waajuram mu jigéen mu ngi tudd hind bint saxl amoon na tamit eh, mbokk mu jigéen mi nga xam ne moo ñoo bokk waajur mu ngi tudd al saaba bintu jabal moom it ab saxaabi bu jigéen la woon bu jàmbaare lool moom nag Muazim di jabal mu ngi gane àdduna dix-huit ans laata gàddaay bi si atum gàddaay bi mun nañu wax ne ah, ans avant gàddaay gi kon gàddaay gi bi muy am moom mu ngi am dix ans kon Euh, si la gane àdduna Yasrib foofu tey fi ñuy wax Medina mu ngi làqu l'an 18 tamit ci gàddaay gi kon bu boolee yëpp day mel ni 32 ans 33 ans yooyu la waroon am ci dund njiirub dundam 18 ans la dund laata gàddaay gi ginnaaw gàddaay gi mu dundaat 18 ans waaw kon mu ngi gane àdduna mm, Yasrib foofu tey di Medina mu ngi làqoo fu ñuy wax Amwaas ci Palestine Euh, dix-huit euh, dix-huit ans ginnaaw gàddaay gi mu tolloog six cent quarante waaw kon buñ doon présenté kuy Muazin di Jabal si lu gàtt rek laata ñuy dugg dëgg-dëgg si dundam mun nañu waxagum loolu ci moom. waaw jërëjëf ñu ngi santaat bu baax sëñ Kadiali présentation bi nga ñu présenteel ki nga xamante ne mooy Seydina Muaz Ibn Jabal. amna solo ngir hamkan, xam kan lan moy lan mo doonoon dundam rek xamna dañ lay bayyi nga leralal ñu bu baax baax conversion ci islam bu muy dugg ci diine islam manam, ci yan anam la woon waaw sayidina Muaz ibn Jabal ni mi def ba dugg ci l'islam ninko niñ ko doon netele moy bi yonente bi sallallahu alaihi wa tambale di wote ba dajeek ñenn si ñu joge won yasrib ba tek ñoom ci fi ñuy wax àqaba jaayante bu njëkk ba jaayanteeg ñoom ba ñu nangu ne dinañ euh, dinañ aar yonente bi te bëgg nañ sax bu ñuy dellu yasrib yonente bi boole leen ak kenn ngir mu jàngal leen seen diine la déwén si nag ñu war a dajewaat ak yonente bi ci même barab bi muy àqaba bi yonente bi nag si la leen boole ak mushab ibnu umayr mushab ànd ak ñoom ba yasrib bi mu demee yasrib Musab tàmbalewaat di fa def daawa di wote l'islam fofu jamono joji nag la Muaz Jabal tase ak Musab al bi ko Musab don jangal taril ak wote gi ko Musab woo xol bi ubbeeku ci lislaam mu tàbbi kon ci loxoy Musab la duggee ci lislaam ba ci déwén si ci la ñaareelu daje Aqaba Jabal bokon na nyarel ñaareelu jaayante Aqaba boobu kon fofu la ñëk tassé ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaayante ak mom bobu mu ngi am 17 ans wala 18 ans digënté bobu la amone kon ndaw la won bu téelon xam responsabilité bu téelon xam lu baax suñu borom dimbali ko ba xolam ubbeeku si l'islam kon nonu la jaayante si ñaarelu digënté aqaba bu ñëk ba ak aqaba ñaarel ba ci digënté si ci loxoy Musab ibn umayr la jaayante dugg si lislaam euh, ginnaaw ñaareel daje àqaba bi si la taseek yonente bi nag euh, jox jox ko loxo jaayante ak moom ci li leen yonente bi wax ñu jaayante ak moom waaw jërëjëf kon ci jaayante googu noonu muy lu am solo ci maanaam euh, ki nga xamante ni mooy Muaz Seydina Muaz ibn Jabal kon ndem dugg na ci diine islaam bi kon dañ lay bàyyi rek nga leeralal ñu bu baax a baax li nga xamante ni moo doonoon taxawaayam digganteem ak euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. waaw ginnaaw gi nag Muaz ibn Jabal dafa dugg ci lislaam rek farlu lool ci euh, xam-xam farlu lool ci diine bi ba loolu may na ko mu takkook yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takkoo bi mu takkook moom it loolu it moo tax mu mujj doon boroom xam-xam bu mag kon liñ ci njëkk jàpp mooy. dafa teela a takkoo bi muy njëkk bi bi nga xam ne Musab la la njëkk tasel dafa takkoon ak musab ibnu umayr ba ñiy dajewaat ak yonente bi salallahu alayhi wasallam mu takkoo tamit ak yonente bi ndax xër gi mi xëroon ci lu baax ak bëgg gën a xam diineem gën a gën a mën a ci ci lislaam waaw kon jamonoy gàddaay gi bi yonente bi gàddaayee ba noppi euh, da daan faral di jël benn kenn ci muhaajiroon yi mooy ñi àndoon ak moom jóge màkk ñëw yasrib mu jël tamit kenn ci lansaar yi mu boole leen ñu doon ay mbokk moom euh, Muaz ibn Jabal comme waa Yasrib la woon Abdullah ibn Mas'ud lañ ko boole loon mu doonoon mboqam moo waral am na xadis yu bari yoo xam ne day décrire euh, Muaz ibn Jabal Abdullah ibn Mas'ud mooy mooy nettali xadis yooyu ndax xam la woon dëkkoon nañ Abdullah ibn Mas'ud sax moo doon wax ne Muaz ibn Jabal da dañ koy xoolee comme suñu maam Ibrahima taxawaay bi mu amoon ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam moo waxoon ne moaz ëllëg muy dekki nag euh, comme xeet lay dekkee day dekki mel ni xeet comme niñ ko waxee ci suñu maam ibrahim waaw kon moom lañ ko boole loon euh, abdullah ibnu masud euh, lañ boole loon ak moaz ibnu jabal ñoom ñaar nag ñu ànd doon ay mbokk sekk kolere gi ànd di ànd tamit jàpp ko gi bu baax a baax di ànd tamit di jàng Euh, di di di farlu si mokkal alxuraan di farlu si di si di di ko di ko di ko di ko jàngat di xamlu di laaj euh, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam naka la ñuy toppee seen diine ñu ñu xër si loolu daal ñoom ñaar te ànd ko moo tax dal na ni boole si ñaari borom xam-xam yu ñu tuddee borom xam-xam lislaam yi rek ñoom ñaar dañ leen si boole waaw waaye rawatina Muaz Muaz ibn Jabal mi nga xam ne. moom la ñuy wax ne moom ëllëg mooy doon imaamul ulama mooy doon imaamu mboolem boroom xam-xam yi ëllëg waaw te ab ndaw la woon waaye loolu li ko may loolu mooy takkoo bi mu takkook yonente bi yonente bi te sallallahu alayhi wa it takkook moom bu baax a baax ba noppi wax ko wax ju kawe dafa mus jël te loxo ci loxoy Muaz ne ko Muaz wallaahi inni la uhibbuka maanaam Muaz waat naa si yàlla ne dam laa sopp kon loolu tamit di wax ju rëy joo xam ne kuñ ko wax rek war ngaa am war ngaa am mbégte lu rëy ndax tey jii buñ doon jël misaal sa sëriñ euh, wax la ne sopp naa la loolu dina doon mbégte lu rëy wala sëñ muntaxaa si boppam ñëw ne la sopp naa la ne la diw yow sopp naa la dina doon mbégte rawatina nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne la sopp naa la kon kooku moom Euh, mun nañ wax ne ku baax la te it borom daraja la ku yonent bi sopp moom euh, fofu mom la baax mu na yam waaw yonent bi ci bopam mo soppoon moise moko ko bopam ba taxna na labiré yonent bi dan nako ko def dan nako ko euh, wax moise dan nako ko lu béré béré na hadith yu béré béré ci ay ñaan ci ay denkané yo xamné ñun ñi jullit ñi ñu ngi kay dégg diko ko appliquer lu ci yëpp Moise la ay jotaay la woon goo xam ne euh, yonente bi ak Moise di ko ko wax mu mel ni benn bis yonente bi wax na Moise ne ko euh, del faral di di di di ñaan ñaan gi muy allahumma aini ala zikrika wa shukrika mooy suñu borom maa ngi lay ñaan nga nga saxal ma nga dëgëral ma si di la fàttaliku ci di la tudd lu bëri ak ci di la sant te nga dëgëral ma ci di la jaamu ñaan boobu euh, dañ la koy jàngal naan boo jullee ba pare dal ko wax da koy wax lu bëri waaye ñaan boobu yonent bi Muaz ibn Jabal la ko waxoon ak yeneen ñaan yu baree bari yoo xam ne noonu la demee woon waaw bokk na si ànd bi mu ànd ak yonent bi tamit moom bokkoon na si ñu daan bindu wax yu bi ci euh, ñu ñuy lim ne ñoom ñoo daan bind wax yu bi ñoom Zayd ibn Saabit Ubay ibn Kaab Muaz ibn Jabal it mënoon na bind bokkoon na si ñu daan bind wax yu bi farlu tamit lool ci mokkal alxuraan ba yonent bi daan na wax naan euh, képp kuy jàng dara ci alxuraan wala képp kuy jël dara ci alxuraan maa ngi lay digal nga dem ci ñeent ñi ki mooy euh, ib abdullah ibn masud wala nga dem ci ubay ibn kaab wala nga dem ci salim mawlahu abu hudayfa wala nga dem ci muazim di jabal kon mom yonent bi ci boppam moo daan wax saxaaba ne boo leen bëggee am loo leen xam ci alxuraan wala lo leen bëgg mokal wala lo leen bëgg dem leen di jël ci ñent ñi te Muaz ibn Jabal si la bokkoon yonente bi yagna tuddu ay sahaba yu mag di ci boole Muaz ibn Jabal waaw musna di tok di di di di di lu ñuy wax euh, manam di di euh, di tag sahaba yi manam ku ñu wax nihma nihma nangam rek nga rajulu ne euh, bi tag na la nihma rajul mu ne Abu Bakar nihma rajul Abu Bakar nihma rajul Umar manam cey Abu Bakar mel nga cey Umar waye tamit boole na ci Muaz ibn Jabal nihma rajul Muaz ibn Jabal kon momit nga xamne ñoñ ay ponkal lañu ci sahaba yi waye Muaz tamit yonent bi daan nako ci boole wa kon loolu yep di lu rëy lo xamne bokkon na ci lu ñu wax ne and gi mi and ak yonente bi li wax ne euh, jangay na ci mom muy tarbiya boobu da ko tarbiyal boppam da daanaka yonente bi sallallahu alayhi wa sallam eh, ci ay ndénkaane ci yéwén lool digganteem ak Muaz ci xam-xam di ko dénk di ko eh, di di lépp lu ko Muaz di laaj mu koy tontu ba tegaalaat ko si leneen waaw kon noonu la yonente bi meloon ak Muaz ci wàllum formation njàngam léegi nag ci yeneen xew-xew siira yi nga xam ne mooy eh, xare yi nga xam ne yonente bi sallallahu Alaihi wasallam dan nako and ak sahaba di di yatal Islam di xex ak kep ko xam da nga taxaw tem ngir bëgg fay l'islam Muaz ibn Jabal tamit fekkee na daanaka xare yep xare yu mag yep fekkee xare Badar mu ngi fa won ndax bobu euh, ci ndaw yi la bokkon waye mu ngi fa won na xare Badar bokku na ci wa ahlu Badar xare uhudit mu ngi fa won xare euh, Ahzab mu nga foon xare yeneen yëpp yu mag yu ñuy tudd yëpp mu ngi foon ba fathu mag ba bi Hudaybiya mu ngi foon tamit xam ne bi Hudaybiya moom bokkoon na si ñi nga xam ne ñoo jaayante woon ak yonente bi te suñu boroom gërëm leen ci alxuraan waaw kon loolu yëpp teewee na ko fathu Makka it na ko ba bi bi sallallahu alayhi wa sallam fathoo ba noppi ba teg ci euh, tek fa euh, atab ibnu usayd mu nek amiru wa mak daf ko toftale ak muaz ibnu jabal ne ko muaz mun nga tok fi mak di jangal wa mak alquran di len jangal lepp lo xamne ne dinañ ko soxla sen diine te bobu moaz mun nañ wax ne amagul sax 30 ans wala bu ko amé it mun koy sogam mom mo euh, togon ci wetu ibnu usayd ngir jàngal waa màkk boobu la yonente bi demee euh, xare Xunayn ak Taayif kon loolu moom mission njàngale ak dénk moom yonente bi yàgg na kaa dénk doonte ay atam mun nañu wax ne néewoon na lool bëri woon na saxaaba yu ko mag fuuf waaye yàgg naa yenu responsabilité yu màgg si lislaam kon noonu la ko yonente bi dénkee euh, màkk ñi lépp lu jëm si njàngale màkk mu yor ko foofu ba saxaaba yu tuubeen yu bees yu bëri bokkoon na si ñi leen jàngal alxuraan ak seen diine waaw eh, ginnaaw gi nag eh, ginnaaw fatwu Màkk mm, yonente bi waa Yemen ñëw si moom ne ko dañoo yittewoo koo xam ne daf ñuy jàngal suñu diine koo xam ne tamit bu ñuy joxe suñu azaka moom lañ koy jox dajale yëpp jox ko ko bu ñu amee lu ñu lënt it moom lañ koy laaj bëggoon nañ daal nga boole ñoo kenn mu ñëw fii ci Yemen ànd ak ñun yonente bi nak si la euh, wo muaz ibn jabal maasa jóg ibn jabal mu ya ibn jabal xamal na dem yow la ñeel ya ilimaani wa yaman fanta lakke yaa maas jibiilu moo ma maas na dem yaman don sen liwas moy ilimaani wa yaman yonen ba woo foofa bilaal maa ko tàllal ma saak meteel mu ñëw mu daldi koy meteel te naa ko waajal dem yaman maas daldi jóg jàpp gëliim fabrax la teg ñu di ko yiim yonen ba naa ko kaaye doom maas tey ma dénk law yaman seppi ko ci mbooloo saxaaba yu yëpp saxaaba yu mag yëpp ñu ngi foon waaye moom Muaz la tànn mu kaala ko kaalal ko boppam mu indil ko waruwaay ba mu noppi ànd ak moom jóge masjidu wi di ànd ak moom di dox di ko gunge muy dem yemen muy nettali gu tiis goo xam ne bis boobu Muaz euh, daanaka ay ronji rongoñom tuuru na fa ndax li ko yonent bi wax ci ndénkaane ak lu mu ko wax rawatina lu mu ko wax ne Muaz maa ngi lay wax ne amaana déwén doo doom euh, dooma fekkaat waaw boo ñëwee fii nag di nga fi fekk sama masjid bi ak sama barab. jàppal ma dénk bi maas ngir man ragal naa ne maas ma nuy dajeeti yow maas yow mal laatiw yaman jàppal ma dénk bi maas ngir man ragal naa ne maas ba nuy dajeeti yow maas yow mal laatiw yaman maas ne ko yaa rasuulullah nëb naa sa dénk bi walla may sakku ndimbal ca ilaa ak dénk bii fa waaya man maas naa ko yaa rasulullah ñëpp naa sa dénk ndimbal ca ilaa kon jàppal sama dénkaane bii Muwaaz nag loolu def ko tiis ki nga xam ne moom nga uh, gën a sopp lépp muy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngay tàggatoog moom mu naan la amaana dooma gisaat loolu moom tiisoon na lool ci Muwaaz ibn Jabal ba nee nañ bi mu àggee yemen moom yemen yëpp da daan toog di fàttaliku wax jooju di jooy rek ndax ñàkk mën a gisewaat ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tamit tàggatoo boobu metti woon na ci moom ndax moom si boppam moo ne daa sopp Muaz ibn Jabal kon moo waral mu gungee ko ba daanaka ci buntu màkk tàggatoog moom di ko di ko dénk dénkaane yu am solo sax yoo xam ne xëy na yeneen jotaay dinañ gën a yaatal dénkaane yooyu waaye daal euh, wax na ko lu bëree bari si ay ndénkaan yoo xam ne bu demee Yemen noonu lay doxee waaw ba laaj na ko sax ne ko boo demee ba Yemen nan ngay àttee si lan ngay sukkandiku ba àtte Muaz ne ko damay sukkandiku ci alxuraan àtte mu ne ko boo xoolee alxuraan gisoo la ngay gisoo si la ngay àtte nag mu ne ko ma xool ci sunnas yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko boo gisul mu ne xanaa ma xool sama xel ma xalaat jël sama xel xalaat rek loo xam ne gis naa ne moo gën a yelloo ak àtte boobu rek ma àtte àtte ko yonent bi ne ko waa kay tigi noonu la kon loolu day wane tamit ne Muaz nitu nit la goo xam ne dafa xamoon alxuraan ba di si sukkandiku di àtte xamoo nit sunnas yonent bi ndax takkoo bi mu takkoo ak moom waaye tamit doonoon nit koo xam ne da daan def ijtihaad di def effort ngir génnee ay àtte si lislaam yoo xam ne euh, amaana day laaj da koy laaj kon loolu bokkoon na si euh, li limi dund ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi Muaz demee Yemen nag mu doon foofu tamit euh, nit ñi bëgg ko lool waaw loolu tamit bokkoon na si ay caractère am mooy dafa soppul woon lool ku yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne dam laa sopp moom kooku moom jullit yépp kay sopp moom loolu suñ borom a def si moom kon ba tax na nee nañ ku taaru la woon dafa doonoon koo xam ay bëtam peru bëtam yu lu ñuul li dafa ñuuloon waaye lu weex li tamit dafa weexoon tàll nee tamit bëñ yi tamit dafa weexoon tàll bu siiñee rek da ngay xam ne da ngay da ngay da ngay da ngay am yëg mbégte sa xol da ngay sopp si saa si am na ku wax ne dem naa ba Cham fekk fa mu fekk mu dugg si jàkk ji gis benn ndaw woo xam ne dafa toog ay mag boofu si kanamam mag ñi dañuy wax seen biir di jottalante ay xadis ba si yàgg bu ñu amee lënt ñu laaj ko ndaw loolu toog ndaw loolu da di tontu tontu gu leer ci kàllaama gu set ba nopi ñom ñep ñu ñu ñu ñu ñu doylo waxam ci la ñew laajte ne ku tawru ke tok nak ndaw le tok kan la ñu ne ma ke moy Muaz ibn Jabal mu ne ci ëlëk ci ma ñew bobu ken neew foon waaye sa su ma ñëwee dama koy gis ne mom moy jitu ci jàq ji tok ci la ñew ba ci mom ne ko man de sopp naa la ngir yalla manam wax ko leer rek ko bi waxon danaka kon mom loolu mom, ku ko daan gis rek dang ko dan sop ngir yalla moas tamit ne ko lan nga wax dang ma maa ngir kan mu ne ngir yalla mu ne ko waxatal mu ne dam la sop ngir yalla mu ko mel ni ko pëñe xëcc ko ba si mom mu ne kon begal ndax eh, suñu borom. Eh, yonente bi sallallahu alaihi wasallam nee na kep ko xamne sop nga sa mbokk julit ngir yalla nga xamne suñu borom it sopp na la te te te dina leen yërëm yéen ñaar ñëpp kon loolu tamit wane na ne moom ku amoon charisme la woon ku taaru la woon donte ndaw la woon waaye loolu yëpp mu ngi woon ci moom waaw yu mel noonu nag am na sax ñeneen ñu nettaliwaat lu mel noonu waaw kon euh, Muaz mun nañu wax ne diggante ak yonent bi noonu la demee woon bi mu nekkee Yemen nag ba ba ba ba yëg ne yonent bi sallallahu alayhi sallam Euh, noppalu na ci la am tiis bu yéeme bi mu ñëwee ni ko ko yonent bi waxee woon noonu la demee dafa ñëw rekk jaar ci barab yonent bi ziar ko jooy jooy yu metti ndax euh, tiis gi ko dal loolu tamit doonoon na tiis jullit yëpp waaye rawatina ak moom ndax ñeneen ñi sax jot nañoo toog ak yonent bi sallallahu alayhi wa waaye moom yonent bi dafa tàggatoo ak moom wax ko loolu li muy nekk ci yemeen yëpp tiis googu moo nekkoon ci xolam xam ne dootul gisaat kii ki nga xam ne daf ko sopp waaye moom it mu sopp ko sopp bu kawe kon Muaz noonu la àndewoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na yeneen sax yu gën a yaatu yoo xam ne ànd na ko ak moom waaye ci tënk rek mun nañ ko tënk ci yi point yi ñu wax waaw ñu ngi rafetluwaat kàddu gi bu baax sëñ Kadiali ci leeral yi kon muy mel ni Seydina Muaz ibn Jabal euh, àndam ak digganteem ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ànd gu rafet la woon ànd gu sell ànd gu gu gu gu goo xamante ni maanaam cofeel euh, da ko mu nekkoon it mu euh, lu neexoon sen sen diggante ñoom ñaar ngir ne ànd ga ànd gi maanaam feesoon na dell ak iman islaam ak tasawuf nga xamante ne rek euh, looloo di looloo di diine euh, ànd diine dëgg la woon euh, kon dañuy rafetlu rek ni nga ko leeralee bu baax a baax kon xam naa te buñ ko teewloo rek dinañ gën a dinañ gën a mën a jekkoo li nga xamante ni mooy dunduk Seydina Muaz ibn Jabal kon xam naa ba yonente bi wàccee liggéey rek maanaam ki nga xamante ni wala ñi nga xamante ni ñoo nekkoon xulafaa rashidun yi mooy ñeenti xalif yi ñi nga xamante ni mooy Seydina Abubakar Bakar Omar Ousmane ak Alioune euh, kon dañ lay bàyyi rek nga leeral digganteem ak euh, wa Rashidun yi nu mu demee woon. waaw diggante boobu tamit diggante bu am solo la daanaka mun nañ wax ne dëggi-dëggi euh, njàmbaari Muazid feeñ na fa bu baax a baax digganteem ak Seydina Aboubacar it noonu la dafa toogoon di déglu ay ndigalam waaw digganteem Omar si la jàmbaaram tamit fasaate bu baakha bax ndax sayyidna umar bi mi nak di di di yaatal ay fatwam ci dëkku Sham euh, ba yebal fa Abu ubaida ibnu Jarrah Muaz lako ko lon Muaz topon ci mom kon Muaz top ci ginnaw Abu ubaida ba don ba ñom it ñom ñaar it ñu don ay xarit daanaka gi diiru khilafa gi yep ñom ñaar daanaka ño ño tàqali ñu lu yag lu bari kon mok Abu Ubayda ñu euh di fathu Sham ba Khalid ibn Walid fekk len fayit ñu and tamit ci xare yu mag jamono joju muy xale xare Yarmuk ñom ñaar ñep fekke nañ ko mu nek seen wet doonoon tamit jambar ci xare wa shamit fonku ko ko euh ba nga xamne euh bi Abu Ubayda peste bi mu amé ba Abu Ubayda shahid ci peste bi mom lañ muju wax ne mu wuutu ko mu mujj doon amir foofu Muaaz ibnu Jabal kon doonoon na fa amir li muy doon doon ndaw boobu mu ngi soog am fanweer at ci la doonoon kilifa waa Cham bi mu jiitee Cham tamit moom moom it euh, euh, peste bi dal ko fon jamonoy Seydina Omar ibnul Xattaab si la shahidee moom it euh, fu ñuy wax Amwaas fa la shahid mu ngi am 32 wala 33 ans ca Palestine bi muy shahid it nga xam ne moom euh, góor yàlla dëgg la woon euh, yonente bi salallahu alayhi wasallam tarbiya ko nga xam ne iman imaan la woon waaye léppam it euh, Islam la woon léppam ixsaan la woon dafa dafa dafa toog toll si mu don doon ndaw dafa xool asaman, ne suñu borom yow de na nga xam ne yow xam nga sax ne man musuma sàkku dara si àdduna lu dul se se se sa sa waaw musuma ku dara si aduna lu dul sa ngeureum kon eh, li nga xamne ni mu ngi marhaban muy de ma ngi kay wax marhaban ma ngi kay wax mu dal ak jam lu ma namoon lol la ndax lolou xamna ne moy tax ma agsi ci yow kon ma ngi wax dee mu dal ak jam na xamne dam ka nam ni ni nga ni nit di namé ku mu sopu te mu tukki lu yag mu koy so gis non la namé Euh, dajeek yow suñ borom kon noonu it lay xaaree déegi kon loolu di di ab ab mujj euh, nitu yàlla dëgg di ab mujj koo xam ne am na ngërëm dëgg euh, kon Muwaas foofu la la la mujjee muy jamono xilaafa Seydina Omar ibn al kon mun nañu wax ne dundam yëpp lislaam la ko joxoon rawatina jamonoy xulafaawu rashidun Euh, donte si Seydina Omar la yemoon waaye amoon na tamit digganteem ak ñoom Seydina Ousmane Seydina Aliou nit diggante bu rafet la woon euh, waaw kon mun nañ euh, wax ne foofu rek la dundam yem ci ay at yu gàtt waaye jëf ju rëy ba nga xam ne dañ naan bu bu xiyaame moom mooy doon imaamul ulamaaw kon mm, loolu it dund bu fees dell la koy maye waaw kon nañ yem foofu rek. waaw jërëjëf kon uh, ñu ngi rafetlu waat rek uh, leeral yi digganteem ak uh, ñeenti xalif yi nga xamante ne ñooy xulafaaw rashidun yi kon ni nga ko waxee rek dundam moom comme ni mu meloon ak yonente bi rek ci. iman islam ak ihsaan maanaam da koo da koo da koo gën a feddali rek ginnaaw ba fi yonante bi eh, eh, ba suñu yonante wuy jooy suñu boroom eh, ñi mu nekkaloon it loolu la fa loolu la doon wóyalaat rek ngir ne islam moom day diine goo xamante ni yàlla buur bi la ñuy jaamu teg ko nag ci li nga xamante ni mooy mooy mooy mooy farata yeeg sunna yi kon ni nga ko waxee rek maanaam dund gu rafet la sa mujj dund maanaam maanaam ngay ngay ngay ngay ngay wax ay kàddu yoo xamante ni eh, maanaam ku ko dégg rek da ngay xam ni kii maanaam nitu nitu nitu iman la nitu nitu nitu islam la nitu ihsan la te loolu noonu maanaam eh, dafa dafa rafet ci dunduk tasawuf nga xamante ni maanaam eh, jullit gi da koy dund kon dañuy rafetluwaat kàddu gi bu baax rek sëñ Kajaal di gën a jaajëfalaat ñi nga xamante ni ñooy kon dañuy ñaan rek suñu borom defal ñu tawféex Euh, ba ay jëmmi jamono incha allahu rabbi rek fii ak ajjuma euh, gii di ñëwaat euh, dinañ amalaat yeneen i waxtaan yoo xamante ni lépp rek day jëm ci li nga xamante ni mooy xayaatu rijaal bi leen madrasa di baaxee kon dañuy santaan mbooloo mi rek jërë ngeen jëf. ñuy gën a ay xaab te seen lam yi ñuy ko góob ñooy waxi neen wax ko yaman bul rek maas te mbokk xiif te bul desal it ne ko kiif te fekk say dëkkaale xiif xaraam na wax ko waaye man boole ka tee maas ba suur bul denc bul wetti bu tuur gannaaw dangaa lekk ba